ayyuhal yoon lexlaas di xul huwallaahu ahad juróomi yoon ñeenti rakan nag ñaari sëlmal lay nekk ñaari rakan yoo julli daal sëlmal ñu dikkal leen ci waxtu yi nga xam ne ci la ñuy jàpp koor gi di 5 heures 17 waxtu ci fajar bu taftalee fukki simili ak juróom-ñaar bu dee waxtu yi dog heures 30 juróom-ñaari waxtu si ngoon bu taftalee fanweeri simili ñu ngi leen di jox dig ba suba incha allah wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.